bu yar rek ko yama ñëw euh, merci beaucoup encore une fois ah merci beaucoup encore une fois Bira Bira si soo bi nga xam ne Davido moomu ak les techniciens soo yi nga xam ne ñoo nekk si biir Moustapha Boulanger nga xam ni boo boo ko gisee day weex bu laalee diw bu laalul diw loxo yi day weex ndax moom dafa jël boulanger rek moo man ko si boppam depuis ta good ba léegi tafaa loxo yi day weex jaaxal na ma nag Eh, waaye jaaxalul Rokhaya parce que Rokhaya nee na benn yoon lay sangu par bés quoi moo tax bon comme euh, tey nag sunu info du rire dañ ko def spécial info du rire du festival du rail dañu ko jagleel li nga xam ne mooy festival du rail sunu mbokk comédien yi nga xamante ni bii dañu woote woon au niveau de la Thiès ñu demoon fa donc dem seeti ji waa festival du rail Cheikh yow demoo woon maak papi ñoo àndoon mbalee <laughs> Cheikh demoo woon as woon <laughs> so ay tamit demoo woon mbalee sa caméra ngi nii mu lee léegi nag sans plus dañuy dem jël benn benn discours bu nga xamante ni bii nii parce que journal bi tey sax ci affaire wu festival di raay bi lay doon nañ dem xool délégation Gambie lan la ñuy wax ci bi ngeen ñëwaat. festival bi dañoo wax rek léegi ñoo yéen a ko door depuis sa kawlax bi léegi kon nag dañuy sant yàlla nag di nuyu seen njiiti réew di nuyu itam su njiiti réew di wax ne ñaari bopp Sénégal ak Gambie yëpp benn lañ ku su nekkee international ñu boole ñu si ñu nekk seeni gan dañ siy bég lool nit soo ñëwee Gambie dem Sénégal yépp moo nekk benn ñu ngi gërëm nag di sant nag di ñaanal alkoos si yëpp biir Sénégal rawatina nag ñun tamit yu jógee Gambie ñëw fi ñu ngi ñaatal ñaanal suñu euh, gaay ya fa des ñoom ñëpp at bu jot ñu ñëw ah festival bi nag kontaan si li tax ñu gën see kontaan mooy dafa jokk mbokk mi boole xol yi boole artiste yi xamuñu woon biir Sénégal waaye festival bi tax na sénégalais yi xam ni ñi xamoon ci biir Sénégal festival bi tax na ñu gën a xamante dañuy woote wante di demlante di seeti wante avant festival kon nag loolu ñu ngi see gërëm yàlla di si sant itam di sant tamit yéen ñi koy def ñu ni ñu ngi ñaan yàlla di wax tamit ne Macky Sall waxa suñ président di ama ah, di Omar Baro na wax ak Macky Sall wax ak Omar Baro ba ñu defal ñu festival bu ëpp bii suñ président bi di Adama Baro ñu ngi ko ñaan mu defal ñu lii Sénégal dañ dee seetaan Gambie dañ dee seetaan télé Sénégal suñ ko si waxee ni dinañ ko gën a gaaw a dégg suñ ministre yi tam taxaw si ñëpp daal jóg si jokko si loxo ñun tam ñu mun leen a oo ngir ñëw fekk suñu si kàttane yaat voilà comme bi ngeen gisee euh, délégation de la Gambie bi ñoom laa tijjee ah, pour wane ni Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey tamit bu ngeen gisee ma sañse nii nice nii bugguma déranger Moussa seen dama am tailleur bu bees boo xam ne ñoo moo dàkka ñëw gars ay Moussa Sène séeréer bu dof mi ngi Malika en face poste ba quoi bon dañuy dem xool soppe lan la wax ci ki bi après ñu ñëw ñu tëjee ko ak président arco bi Jules Dramé quoi. Thiès nag dafa nekk euh, la capitale du rail mais man dina faral di wax ne bu fekkoon théâtre Sénégal dañ koy séddale bu cees njëkkee jël euh, après keneen ku jël waa dina dina metti ça veut que fii ay homme culture rek ñoo fi dëkk fii Kajoor la maanaam lu ci bare bare bëri ci wàllu caada lu ci bari boo ñëwee fii cosaan bi da cee am as as tuut donc plaisir la pour ñëw fête théâtre d'abord plaisir la pour ñëw fekk ci suma ay nawle plaisir la pour ñëw aussi fekk si ñoo xamante ni lépp loo def soo bëggoon ñu ñëw taxawal la kon bu ñu xewlee ñun lépp lu ñoo def dañ koy bàyyi ñëw dooleel gis nañ ni tamit jamono ji weesu def nañu benn lël pour CNRA affaire koor geeg yu ni mel ak yooyu euh, pour yenn kàddu yeeg ak formation théâtre beeg yooyu noonu mbaa am ngeen ci réussite. waaw am ngeen ci satisfaction. waaw macha allah euh, ñu ngi ci am mbégte boo xamante ni sax xaw na. xëy na wees na suñu njort parce que tamit euh, bi loolu weesoo ñun duñu taxaw gis naa la sax yow sa émission après nga ciy wax te loolu rek pour man plaisir la tey ji ñu ngi commencé di ci waxaat macha allah am na ñaari télévision de la place. yoo xamante ni jóg nañ ñoom nee ñu pour porté projet bi nga xamante ni ñoom les privés ñoom ñooy daje seen biir def benn kuréel pour fexe ba loolu jëm kanam te loolu dafa am solo parce que loolu ñu def euh, yoro du pour ñun on s'est rendu compte que population bi ñoom ñooy seetaan ñoom ñooy consommer ñun dañuy prévoir parce que xam nañ ne comme population bi li mooy seen jàmbat bu ñu toogee seetaan comédiens yi dans cinq ans dootu ñu am lu ñu jouer ñii parce que ñii ñu ngi leen di jox ñuy lekk rek di lekk rek te nit bu lekkee ba suur dootul bëgg dugal dara. loolu lañ doon prévoir pour bëgg gaa yi fexe ba ci œuvre yi ñuy présenté ci weeru koor bi mu nekk lu lu lu lu am qualité ci côté yëpp autant qualité technique. qualité artistique qualité humaine te loolu moo taxoon ñu dajaloo gis nga yow bi ñu fa dajee ku nekk wax nga macha allah ni nga gisee affaire yi te li gën a am solo mooy du ñu ñoo taxaw rek wax ko man dama def un constat def benn tableau ni série yi mat nañ fukk ak juróom-ñett booy xool. ci télévision yi fi nekk yëpp ñi am ñeent ñi am ñett ñi am ñaar ñi am benn loolu laa def ni constat bi mooy ci ay plainte ñuy jot Sénégalais yi nii lañ ko gisee mais yéen artistes yi seen bopp ñu koy def wax ngeen ni ngeen ko gisee ak lu tax ngeen defee ko nii foofu moo am solo donc mbir mi sotti si la ak def si ngeen joué si nag loolu ba am solo ñu koy sante yàlla. merci beaucoup Ibrahima. mais eh, yaa ngi waajal festival waaw ñu ngi waajal aussi festival de théâtre Keparu Maam euh, waxuma sax 2S mais yow partenaire festival bi nga. parce que ñu ngi daje ci yu bari ngay dundal théâtre te keppaaru maam actuellement toll na foo xamante ni ci wàllu paysage théâtral à Rufisque et au Sénégal ci dimension yu am solo parce que ñëpp ay teew macha allah te du rek dañuy ñëw jouer jóge fa non dañuy toog aussi càmbar waxtaane théâtre xool li koy jëme kanam. voilà gis ngeen euh, soppe nga xamante ne bii nii wax na ko si biir euh, festival di raay léegi nag lu ji njaagate yow yaa njaag kan moo njaag ñu ne Jules Jules Dramé nag moo nekk président ARCO bu Thiès euh, délégation ànd ak ñoom Njambe Seen ñoom Bella ñoom Ndey Sini tout le monde ñu déglu discours président bi lan la wax parce que bii mooy sept ans festival bi di am. boo amee ay nit ñu seet si la nga woole ñu wuy si la war nga leen toppatoo donc loolu moo waral dugg bee génn bi mais macha allah ren moom alhamdulilah rabil aalamiina yaakaar nañ ni daal nit ñi bu ñu ñibbee. coono guñ foor eh, jafe-jafe buñ fooroon am dina wàññeeku bu baax a baax xam nga organisation nag moom jafe-jafe mën cee ñàkk mais ñi ngi def suñu kéemtulaay kàttan ba nga xam ne dina wàññeeku bu baax a baax a baax ci loolu daal la ñu nekk guddeeg bëccëg eh, pour nit ñi mën a nekk à l'aise mën a def ay spectacle ren dafa am lu ñu consolider dafa am lu ñu defoon daaw euh, defaat ko ren pour mu saxal ko euh, festival bi dañ def ay spectacle de théâtre rek ku nekk dem mais ren depuis daaw dañ ci dugal benn panel di waxtaan ci thème bi parce que xam nga artiste comédien yi du ñu dem ci conférence du ñu dem ci ay daje yoo xam dañuy weccante ay xalaat euh, donc dañuy dajaloo rek mu xumb rek ñu dem mais depuis daaw dañu bëgg léegi nit ñi di toog di waxtaan ci ay thème di renforcer wu ci thème yooyu parce que ñoom ñoo war a janoog askan wi di wax ak ñoom nit ñi ngay janoog di wax ak ñoom nag war nga maîtriser li nga moo tax buñ dajee ci festival yi ñuy bëgg ñuy toog di waxtaanee ci ay thème di weccante ay xalaat buñ ci jógee ku nekk am ci loolu la jariñ donc daaw defoon nañ ko ren moom la ñuy consolider waat si thème bi. bu ñu si loolu boo dañuy dem si revue de la presse bi ah comme d'habitude ah dañuy dem si revue de la presse bi revue de la presse bi dañu ko déparé ak euh, tribune de la bon tribune de la yéenekaay nag moom mi ngi xëy euh, taxawal bennoo bennoo si boppam dafa tas nee na bennoo daal ay mbiru bennoo bennoo la léegi. ah léegi affaire bi bënnoo la quoi doonatul bennoo dafa bënn mi ngi mel ni saako gerte bu bënn affaire yi wadda quoi di wadda di la tribune de la yéenekaay moo ñu ko yëgal ah, buñ si jógee dañuy dem si Lévidas Lévidas dalaay voilà Lévidas yéenekaay si kaawam oo ko wéetee ko Siré Dia Siré Dia mooy directeur général de la poste nga xamante ne bii nii Siré Dia dañu koo bëgg li ñu ko bugg tuumaal nag Siré si boppam mu ngi ko weddi di wax si Siré nga xam ni moo jàppale artistes yi salaamaaleykum. salaamaaleykum waaw ça va. Badda. Badda Adi Sel. Odu. jaam tan alhamdulilah. kan moo ko wax dafa am lu ko réer. koy seet. Badda. eeyi mo jewata ɗo henna ko do woni deux s eyi hmm? eyi deux s eyi eyyi eh, min goni koye wadde émission o de oyo dañuy def émission ni direct li min goni samedi émission direct leñu nekk ni ko baɗum elas ndiaye hmm? ko baɗum elas ndiaye eyyi eh, ɗum lool ñun suñu yonne ko side yaha toyen jeewa elas ndiaye e ko wayi noon mbokk El Hadj Ndiaye la di dugg li nga xamante ni bii ni mooy festival di raay bi eh. ak festival bi nga xamante bii baaba min woon mi koy waddi revue de presse waaye war waram déranger jën mi yiidi ko Macky Sall jën mi yiidi nekkul fii fii du place Macky Sall doo ko place yero yero yero sow wonaa ko doo woon DSS TV eh DSS ko fii waaw coow lu mu ko saak maar hmm. eh yaa tooyeen na eh mbañik jokko saak maar mbañik yaa mbañi tottuma sak maaro o totam sak maaro eyyi eh, o tottuma sak maaro ñu ñëw si enquête de la yéene kaay enquête de la yéene kaay nag moom ah mimi la indi waaw nee na nag mimi ku bëgg xam ci waa wax na si wàllu accident yi wax na si wàllu pëccëxoo bi am si réew mi wax na ci wàllu lakk-lakk yi nga xamante ni bii ñu ngi lakk rek nit ñi di lakk rek di lakk wax na tamit si li nga xamante ne bii ni mooy mbirum Khalifa ku ci bëgg am lu la leer daal ñëwal nga wax ak l'enquête wala nga lire l'enquête de la yéenekaay kii kan ma ko waxaat mu ñëwaat. tan kam de donc chaque maar coxlu. eh chaque maar wana do donc revue de presse. min mbaɗata ko revue de hmm? de presse mbañ. ndooy kaa leen dimbali ma waay maa ngi pale direct waay kii Fuuta la jóge mbokk El Hadj Ndiaye la dimbali leen ko waay anamu mbañi dimbali leen ma fii waay dem mi ngi may nuuru di ma xencu lu ne mu dugg si baaba wa wan ni doo wona place hay gooto wan min foti wonde doo en eh. eeyi vox populaire nag moom si li nga xamante ne bii nii moom la tijjee tey moo nekk Macky Sall mbirum li nga xamante ni bii nii mooy pétrole bi wax na si mbirum pétrole seen bi pétrole timis bi ak pétrole takkusaan bi comme li ma leen waxoon rek moom nee na loolu mbuxum yi ñuy wax ak yi nga xam ne ñu ngi koy jëmale si mbirum pétrole bi loolu yëpp amu si waa Manko nee na boog ñeenti gaay yi ñoo si gën a saf-saf ci wa Manko yi Thierno Bocoum la masali ak Boy Barthélémy Dias ak Toussaint Manga nii na ñu nag ñii ñooy gangster yi nag ñoom ñooy jaay affaire bandi bandi lu quoi bu affaire Manko bu taxawee rek ñoom ñooy taxaw xam nga génne dënd yi wane nan la ñu toll ak lu ñu munee ak lu ñu munee wul ñoo ñëw tiital Macky Sall quoi <laughs> mais leneen kawteef mu comp ci as lëf comme ni ko Moussa di compee muy kawteef bi am na kawteef bi am bi nga xamante ni bi am na ba jaaxal gaay yi mooy jabaru jili création musa seen wax ko ma wax ko mu comp si lëf ma comp si as lof man it li ma si comp nag nekk na jabaru jili création nee nañu moom moo fekk <laughs> ànd ak ndey Liliane yaa ngi dégg fekk benn xale bu jigéen photo ay photo yoo xam ni comme photo kii yi fi amoon rek yow as amoon nga photo kii yi <laughs> photo andi euh, kii danseuse boobu danseuse bi nu mu tuddati sax mbaye mbaacoo waaw <laughs> yaa yow ba léegi yow ni nga yanko yow yow gerte buuse sax la tane yow as yow <laughs> waaye sa tur bii moo ma jaaxal daal comme photo yu mel ni comme photo mbaacoo yi daal moom la ñu jël Eh, daal di koy publier instant bi mooy wax ak yéen sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi prison quoi gars yi jàpp nañ leen pour ñu def ay explication ci loolu euh, léegi nag baaba jeew ɗo ko place am min foti wonde doyen ko yata koɗo arata ko min min gondani hen gonmi koye wadde émission ya ha bo ya bowan noon min gonmi koye wadde émission naa ko doo eh, woni DSS doo so woni DSS di bureau Elhadji Ndiaye nan to en he eh, ndoy ndoy mbañi kalen dimbali kii waay yow tam nag mbañi nag bu leen te waay kii xew ma xel mi neexul xew ma lan la comme baadi ko ey eh, argaay baam yaa ko alday Elhadji Ndiaye fii du place Elhadji Ndiaye fii sama place demal wax ak Elhadji yee li nga xamante ni bii ni nag moom laa leen di jox ci festival di Thiès bi tey nag amul plateau tey li mu am mooy di nga xamante ni bii moom lañ jëlee Thiès moom lañ leen di tegal tey tegal leen ko li nga xamante ni bii mooy dimanche kat yi à partir de 16h li ma si njëkkee nag mooy dem leen seetaan Arco Pikine ngeen jël si waat ci plateau bi yesaay dem leen seetaan ko seetaan leen Arco Pikine. man nag télé bii laa gën a bañ ci télé yi parce que moom amul émission. xoolal lii rek lay teg ma dama koy ñëw changer du ko yàq fenn. waa <laughs> télé bii nag laa gën a bañati xool leen man ñii moom amuñu amuñu amuñu dara amuñu tem amuñu dara xaaral man dama ci boole wax ju bari rek laa koy def changer ko ay wax day jeex ah sama émission. xaaral ma yokku. chers téléspectateurs bonsoir. ah waaw. Nous sommes un soir, eh? comme tous les soirs, mais un soir qui verra ce qu'aucun soir n'a pu voir. Ah, sama mbokk téléspectateur ñu ngi leen di nuyu di leen tagal-tagal ci seen émission bëgg sa réew seen émission bëgg sa réew nekk émission boo xam ne dafay dox di xeex li nga xam ne mooy crise des valeurs ndax nag tubaab dafa am lu mu wax tubaab dafa ne la vie de l'homme contemporain semble placée su le signe de la crise ah, crise avec un grand C crise économique crise de valeurs morales religieuses et spirituelles ñun nag ñu ne dañoo bëgg un Sénégal émergent mais loolu du am mukk tànk dañoo changé wu li nga xam ne mooy suñuy comportement kon nag néeg 10 ñu daal di demal leen tey Thiès si marché waxal jàmm. kon daal marché waxal jàmm jax na bàyyi faal yéeg ñëpp a ngi si biir. Euh, ak kan ki gara ma ne marché bi sa marché ñëwal soo amee ñëwal ñëwal soo amul ñëwal ñëwal marché bi sa marché. voilà léegi waa marché waxal jàmm. ana waa marché waxal jàmm tàccu leen seen bopp waa marché waxal jàmm léegi seen émission bëgg sa réew mooy ñëw tey indi leen benn question question bi nag 3 millions lañ teg léegi dama bëgg ngeen concerté wu seen biir xool ñi nga xam ne ñooy tontu suñuy question waaw. doomu baal ma annoncé rek yaa logay ku ko gis su marché bi ne ko dama ko soxla. waaw nee na moom yaa nogoy lay seet ci marché bi ku gis yaa nogoy ci marché bi na ñëw wuyu grand bi. aja kon concerté ngeen ba pare. aja dañuy xool ñi nga xam ne ñoom ñooy représenté waa marché bi kii ngeen tànn kon maire yow PC tous vos cora muy suñu hymne national lañ bëgg nga woyal ñu boo ko woyee ni nga ko war a woyee ñu amaat yeneen ñaar laajaat leen leneen laaj buñ paree ñu jox leen li nga xam ne mooy kaño bi toll na nag ci 3 millions acca bàkku réew mi lañ lay laaj waaye balaa ma kaa wax ah woo leen bàyyi faal ba pare ana faal faal bisimilah doon leen na yeneen ñaar faal bisimilah waaw kon Baye Fall bokk na si ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ñu war a def li nga xam ne mooy hymne national muy suñu bàkku réew mi ñu déglu Baye Fall ak hymne national bi Pensez tous le lion rouge a le don de la brousse, de la bon s'était lancé, dissipant les ténèbres. Soleil sur notre mouillé, soleil Fibre. de mon cœur. ah waaw Baye Fall kon jaajëf jaajëf dégg nañ la jàmbaar ga waaw merci ñu xool ki nga xam mooy soxna si soxna si ñoo man. maire PAM waaw maire a dimbali ñu si li nga xam ne mooy bàkk réew mi pese tout pese temps sapuri bala fond milio aligi la danse de la brousse les hispaniques sont eh wanaano eh, eh, eh. wanaano ah, docteur de la brousse les ah. palais les lions i jam wana noonu ah, jërëjëf jërëjëf maire Pam jàmbaar ngay magum jëmm dem ba làq fanweeri at li nga xam ne mooy seen bàqu réew mënuñ ko lii lu ruslu la ñii ñoo considéré seen bopp ay sénégalais waaye réew mi considéré wul leen euh, waaw baal ma tuuti mu ne man nga baal ma tuut baal naan cagnotte bi ñaata la 3 euh, millions mu ne nga indi avance bi. daa ah, ko kon ñu may ko beneen chance rek ndax ñu ngi ñu ngi doon tëj sax euh, léegi yow yi dama ma laaj noo tudd ak noo def ak indi ba ba ba pare. waaw ma boo gañee cagnotte bi joxe sa tur sama mbokk yëpp dañuy ñëw dama ñaan damay leb euro bi ah man maam Ndoge laa doon seet te dama am baal bu ma war dem. moo jox paas Senghor il fut le premier président de la république du Sénégal donc événement bi ñu ngi naan ay Pampariba Pampariba Pampariba laa man damay fay télé bi wax ji jeex ndax man damaa soxla ah, bañ naa bañ naa du Euh, merci beaucoup. yes sir yes sir yeah bu ngeen xamante bi ni jóge ngeen ci Arco Pikine gis ngeen prestation bi nga xam ne Arco Pikine def nañ ko donc sans plus tarder dama leen di joxaat beneen bi nga xamante ni bii nii mooy deuxième fois bi mooy waa Arco bu Dakar Arco bu Dakar nag bala ñuy seetaan xam ngeen li ma sol ni chemise bu nice la fii lañ ko ñawee tubaab yi ñawuñu ko euh, américain yi ñawuñu ko mais benn séeréer moo ko ñaw bu ñu wax Moussa Sène mi ngi Malika di ñaw ñaw yu nice donc Moussa Sène nag numéro am 77 la 657 89 98 wala nga def 70 463 60 20 loolu mooy Moussa seen mu ñëwal la si chemise bu nice bokkul ak Moussa Sène mi nekk fii di def revue de la presse de bi Moussa Sène costume la quoi demal xool Arco Dakar ñu ñëwaat. Dis-le, Coco, toi aussi. Oui. Ah ok. dama war a gaaw. voilà defal ma ko si saako. voilà. moo ko yelee. merci. ayca. eh ba tëj nga fépp yow. ah fépp yow rek yaa ci des. ok waaw mais attends oh oh oh là là téléphone. allô oui. oui c'est docteur Senghor. pourquoi mais man dama nekk congé maa ngi préparé suma voyage bi la doon wax d'ailleurs maa ngi quitté sama kër pour dem aéroport mais da ngeen di woo docteur Niang ah bon opération ok d'accord d'accord y a un à l'hôpital léegi nag. dañ ko war a opérer. lan moo ci sama yoon. lan mooy sama yoon ci ku feebar ñu war kaa opérer Lamine Senghor. eh xoolal sa yëpp ñàkk fayda yi bëgg ma ko de. ah yow dañoo ko nekkee ni da nga nar a annulé bi naka ma ko teel a wax voilà. ñàkk foo fayda Fatima. Fatima lan la. eh y' a kii jël yow kese nekkoo médecin ci Sénégal nañu woo keneen mu faj ko parce que man ak yow war a tukki voilà. mais Fatima kooku man rek maa ko mën a faj waaw. yow rek yaa ko mën a faj. léegi nag. mais yaa ko mën a faj. waaw faj ko la ministère faj ko ñu toog. <laughs> Fatima question de vie ou de mort mais Fatima mets à leur place bu fekkoon yow la di nga bëgg ko la assister. eh damaa bëgg nga may ma sama jàmm. yow de yaa soxor yow man ngay dëkkaleeg sa malade yee man li gën diwoo feebar li gën diwoo ku war a opérer xam nga la laa res sama voyage bii. Eh. waaw. Fatima mais bul fàtte ni la te dama prêter serment. da ngaa prêter serment. te dama koy appliquer. da ngay appliquer appliquer la Lamine Senghor appliquer lu ci gën man soo demee damay dem soo demul damay dem. ah bon waaw. mais demal. damay dem kay. la porte est bien ouverte. oui merci Lamine Senghor. dama ni sama maladie. ma ma sauvé bakkat moo ma gënal yow sa voyage. loolu sa problème la. mais demal. damay dem kay. ah dama dama may dem. yes saay boo jógee ci loolu encore une fois dañuy dem daal di li nga xamante ne bii nii mooy euh, mooy one man show yi dama lay ñamal benn one man show bu ma lay ñamalee benn one man show am na benn boy phénomène boo xamante ne bii nouveau talent la bu commencé sax bàyyi leen ko xel mi ngi si yoon bi ça va venir bientôt mais xool leen one man show bi nga xamante ne bii def na ko ngeen dellusiwaat si plateau bi ñu tëj ko bu ñu ko tëjee daal di joxante rendez-vous nag dimanche ma lancé leen ITV yi. yi des waa ARCO Louga waa ARCO yi nga xamante ne bii nii mooy ARCO de la Mbour waa ARCO de la de la de la de ak ñoom Kombe ak ñoom Bombe ak ñoom Fonde ñoom ñëpp seeni spectacle maa ngi leen di jox rendez-vous le dimanche mais demal seetaan one man show del si waat ci plateau bi mu tëj ko nag mu jeex ac demal rakoy demal ay demal ye demal des <laughs> ci état bi bis bi di daw am benn xale bu jigéen bu bari tiitar mi ngi ci arrêt bis bi gàddu téléphone bi papa tu sais mon téléphone papa je veux que tu changes mon te plaît papa change mon portable bi ñëw mu dugg ci biis bi continuer yor téléphone beeg tiitar bi Papa, mon téléphone, toi aussi, s'il te Papa, je veux que tu changes mon portable. waa bis yëpp di reetaan xaxaxaxax mbete dakk benn ju bari doole ju ponkal jug ci bis bi mais merde yéen lan reetaan ah mais kii li mu def dafa jar ngeen di reetaan ah lii li mu def dafa jël ngeen di reetaan di ko teg gàcce nii comme ça maa ngi xaar ba kenn reetaan na fi waa bis bi yépp ni teg bis bi di daw ba yàgg waa ji nii demandel ma arrêt prochain arrêt di wàcc femme bi ni ah man kay doo ma fi bàyyi sama gàcce kii man kay damay wàcc wàcc ñëw ci waa ji ni ko vraiment maa ngi lay sant di la gërëm loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal sama gàcce tey gii nga dimbali ma ci génne ma ci nii yal na la yàlla suturaal ni nga ma suturaale yal na la yàlla noonu xam nga lan laa bëgg sëñ bi jox ma sa numéro comme ça ñuy déggante de temps en temps waa ji jox ko numéro ñu teg ci deux jours femme bi woo waa ji allo allo oui <laughs> ça ça va na nga bi oui ça va kooku <laughs> xàmmeewoo ma non xàmmeewu ma la de yow la kan <laughs> xamee woo eh, ma man maa doxatoon ci bis bi. ah bon si ah ok ça va na nga def ça va bien eh, alhamdulilah. Eh, waaw dama la soxla woon dama la bëggoon a invité resto. ah ok y' a de problème. <laughs> ñoom ñaar ñu defee resto waxtaan ndeysaan l'amour daal di dugg ci diggante boobu. waa ji génn li ma yoon lépp takk femme bi. ñoom may ko premier jour bi nu fanaanee ci néeg bi dañoo xëy waa ji pop lal bi femme bi yeewu gis waa ji ni mu puuralal bi mu ni nag dinaa ko suturaal comme damaa suturaaloon ci bis bi àdduna amul solo defoon naa fi bu ni weñu mu suturaal ma jël darab bi ndeysaan fóot ba mu set lal daan ni naa ko naa fi lu ci bis bi mu ma ko suturaal àdduna amul solo ñu tëdd deuxième mu yeewu gis yëf yi daan naa ko suturaal ba tey àdduna amul solo comme que naa lu ni weng ci bis mu suturaal ma naa ko suturaal rek àdduna amul solo troisième jour ñu yeewu waa ji bi xam nga jigéen ak jikkoom rek fam bi mer woo jëkkër ji ba mu ñëw ni ko yow xam nga laa la bul ma fontoo laa la wax man duma sam morom yow lii la la ah xale boo ndaw que ma mënoo maa jariñoo lii franchement pop yow lii lan la ah xoolal xam nga lan bëgg damaa bëgg nga may ma sama baat ci nii wala ci naa waa ji négocier mu ne ko xaw ci dara may ma sama baat rek góor mer moom tamit xoolal jëlal say bagage nga dem yaa gën a xam ni sëy bu dox takk ay daya koy tas bañ démb dab ñu lii ku ko tekki dof dof di jéemoo yaa danga bëgg a don't stop rak rak fril say nopp yow di ko yàgg kenn studio demin DJ Bira machine bi loolu la DJ Bira DJ Bira DJ Bira ça c'est quoi eh Bira ça c'est quoi ça Bira eh Bira yak Tapha ça c'est quoi ça eh Kidaba ça c'est quoi ça. aduna ma xaar loon du may digal lu baax ma def la sama noon dagg li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi tëjal baba yaltu palaasam yaltu do yaltu yaltu yaltu tan taw ka kangaan mun gurma hangeede yaltu do weddinima doon famu gas sama ay mbokk front bi tëjal ma wan la tëjal tëjal tëjal Firas Firas tëjal waay voilà léegi comme noonu la demee ah comme noonu la demee léegi damay tëj plateau bi di nuyu waa waa waa Thiès di nuyu encore une fois Siré mi nga xamante ne bii ni jàpp na pour man nag Siré Dia sax moom moo nekk maire bu Thiès quoi man dama yaakaaroon ni Siré Dia moo nekk maire bu Thiès ndekete nekkul maire bu Thiès bon def si di jàppale tous les jeunes de encore une fois merci le reste c' est à venir c' est dimanche bi ngeen añee ba pare toog leen xaar li nga xamante ne bii nii mooy li xewoon Thiès dégg-dégg quant à moi tëj naa ba beneen samedi ci beneen émission info du